dama sonn sax. yow bas yow maa ngi feebar ba sonn nga woon maa jëndal sa sama ordonnance nga bëgg dem dox sa soxla. mais mais rek eh, noppi boo dee yaa xam man li jëntiwuma la damaa am sama laaj bu may dox nga am ma ay feebar dama doo ma noppal paa bi fii la feebaroon nga di ko seetaan ba mu dee. du ma sa wax wax da wax ak sa ndey man bul waxaat ak man dégg nga fa a yem ak yow du ma sa morom. fii moroom amu fi ndax bu fi moroom amoon sa ndey bu tëdd feebar nga ne dangay doxi sa soxla. wala yow mère sax boo paree nga ranger ma loolu man maa ngi dem nga am ma ay fii ay affaire moroom fii dama am leneen lu may doxi yow yaa fi rey paa ba paa di wax xoola yow amoo loo wax yow yaa rey paa maa ngi dem sax sama ma jàmm ma ëmb juróom-ñeenti weer benn bés ñoo xaw maa gaañ ma tëdd feebar mënuma sax jëndal ordonnance. ala bee xaalis bi ma lay yónnee bàjjoon nga ci. no bëriwul sax bëriwul sax cinq cent mille kese la. bul wax dara non fii ak semaine prochaine naa la yónnee leneen bul wax dara bëriwul même man sax xam naa ne bëriwul maa koy xeeb mais mais garaawul après déggoo la daam ma jëm nii rek daam sama benn booy may seet. ñu rafet ni du leen jaay xam ne feet la feetu rafet la koy mais koy naka koy. yaa ngi jàmm. ba léegi nii de sama mère dafa tëdd loolu ci yow la rek booy mais xoolal waxuma loolu doo ma dalal sax ma toog sa bale booy bale. duru ma laa miin tëdd demal nga toog maa ngi ñëw waaw kon baax na incha allah mais man am na nekk sama xel mi sax booy man kii kii ma seet si liggéey li man ma bàyyi sama yaay tëdd feebar man man ma ñëw seet ko te ba mu occupé sax mënta ñëw sa waxtaan ak man xaaral xam naa li may def man maay jóg dem liggéeyal sama yaay li ma sant. mais booy ci kanam déggoo. mais pare naa di dama xaar. non. mais da ngay def. non baax maa ngi dem. ah bàyyi génneel li nga yor man yoruma dara eh maa man yoruma dara maa ngi nii jàpp ci rek ngir yàlla ma dem booy fii li la fi dugal génnewul la fi xalaat bëggee jox ma li ma la laaj balaa ngaa ñàkk sam na ñu xëy bés dikkale ñu ñu yaakaar ne ñun rek ñoo yow bés yow maa ngi feebar ba sonn nga woon maa dindal sa samay ordonnance nga bëgg dem dox yi sa soxla. mais mais rek noppil boo dee yaa xam man li jël tuuma la damaa am sama laaj bu may nga am ay feebar dama doo ma noppal feebar paa fii la feebaroon nga di ko seetaan ba mu dee. bu sa wax da ngay a yem ak yow sax boo paree nga ranger ma loolu man maa ngi dem nga am ma ay fii ay affaire de fii dama am leneen lu may doxi yow yaa fi rey paa ba paa bi nga nekk fi di.